dal Nokia dal tonnerre moo koy dal incha allahu rabbi man maa ko laaj maa koy jël maa koy duma maa koy daan si kàttanu yàlla. walaay di nga xam ne góor nga ko saxal. naa la duma daan la. boo xeexee ma duma la boo bëree ma daan la. damaa daan Nokia daan tonnerre te yow laa ciy teg incha allahu rabbi. bii mooy sa dernier dugub. su ma paree si yow continuer sama liste des na ñeneen a ñeneen. yaa taxaw wax lii. waaw bu jour waa na nga taxaw rek dëggal li nga wax. li nga xam la. tey daa mel ni neexoon na. ndeysaan xel SBT boobu mooy troisième combat ñu jégalu nag ci ñaari combat yi ñu dara maa la wax loo xale arbitre daay wax ñaari mbëri. ndeysaan. coup production arbitre bi sifflé production moo ñu fa woo diggante Pokola ak ki nga xam noir. ñaar xale yaa ngi noonu Alioune Tééré lañ jàkkaar lool. Pape Signor Pape Signor Pape gerte Pape Signor Alioune Tééré mbàccum gerte Pape Signor a ngay dóor Alioune Tééré ngi na tekk rek ah. Alioune Tééré moo dem ngeen ñuul li moo féere sunu ndeyjoor maa ngi wax ko mais Alioune mi dafa mel du gis kuude Alioune Tééré lii lan Pape Sior mii xeer dafa mel ne dañoo ko doomu daanu waaye déedéet ca tànkee jëm. ca tànkee jëm. maa la wax loolu ca tànkee jëm. picc nga sa kaw waaye xel maa nga ca suuf. ndeysaan. SBT Média foofu la fee ko teg foofu la daaw na jàpp ko jàppante nañu. ndeysaan. Pape Sior a ngay rasu ma ngay rasu. Pape Sione ngay génn ma ngay rasu dóor rokas rokas Pape Sione a ngi dóor waaye Aliou Déré du ñu bëre Aliou Déré Pape Sione Pape Sione a ngi dóor Aliou Déré di fay ñaari xale yi jàppante nañu ko ndeysaan passe gaay bu yàgg Pape Signor génn na saako yi Pape Signor génn na saako yi Pape Signor jàppante moo ko arrangé moo tax mu génn saako ndax boo xoolee xeex bi la bëgg. waaw si yoon moo leen mën ci naaw waaye ñu ngi jàkkaarloo moom moom loolu mel ni jëm xew. ñu damante baaraam waaye Aliou waaw si ñoo rek ñu dóor damante baaraam jàppante waat noonu jëw bi jàppante noonu ñoom ñaar lan mooy xew Aliou Téere mbaa du ay Pape Sow loolu yëpp naa ci lan la. ñaari xale yaa ngi bëre ñaari xale yaa ngi bëre ñooñu amul combat bi ñu sëbal la ñu jënd bëre ñoom ñaar Fatou Seye moo leen wan ginnaaw ak bëre ngeen jàkkaarloo ñaari xale seen combat métti na ñu bëre ñoom ñaar entraînement wu ñaari xale bu nekk semaine la jël combat bi

ba tey dara amagul course su paane moo toog ca sees ba ndeysaan course su paane moo toog ca sees ba. Pape Signor jàpp na ngem Aliou Téré ngem ngem Pape Signor neexut a jàpp da a tax da lay mbot tax ko da koy daan da koy daan kon xew ña nga jël suuf ñoom ñaar ña nga jël mbot tax lay doon. ay meesit am na lamb ji jeex na maa la wax loolu am na koo xam ne bu daanaatee bu bu bu daanee rek ko seen dina ci am yoon am na koo xam ne bu daanaatee day daan day daan ñaari yoon day daan ñaari yoon maa la wax loolu ba daan ko ay man am na koo xam ne bu daalaatee day daan ñaari yoon am na koo xam ne bu daanee nekk euh, maa la wax loolu le premier site bi mooy compte maa la wax loolu seen seetlu jàmm yoon lamb ji seen seetlu jàmm yoon. match nul ba amee seen seetlu jàmm yoon combat bi foo jaar seen see am ci yoon maa la wax loolu munu see ñàkk bu daa bu jël ko awaanul waaye maa la wax loolu. mbii dara nañu ndeysaan. Père Baye wax ak ñoom laaj na ay bi la ba daal na ginnaaw demee mbitaa ba ñëw ndeysaan mbokk yi maa la wax loolu Pape Thiam ji mboori tuus ndeysaan Pape Thiam écrit ji mboori mooy tuus noonu maa la wax loolu waaye kooku mooy Ibou Boucar Mbaye Fall Ibou Boucar Mbaye Fall moo fa andi mbooloo bee ngeen di seen mbokk yi maa la wax loolu kër bii mujj fii diggante ak Balla Mame Balla la woon Mame Balla daan maa la wax loolu ñaari xale luy xew luy xew Aline Téere Pape Senior jàppante waat nañ ne delluwaat nañ ca delloo buum ca mboy mbay ga ñam naa ko neex na naa ko bul fenn maa la wax loolu. waaye diggante ki nga xam se ne nii moom mooy Pape Thiam 1 Boy Kozlik ci mboor yi ak Boy Gandiol loolu combat wax naa leen lëf la maa la wax loolu ñaa nga caa ñaa nga caa ay waay combat mbër mu da wut a yàgg dafa war pare. moo tax dañoo pare ñoom ñaar moo tax kenn ku bu ko ñaax. waay waay déggal ma clavier ba waay waay delloo waat nañ ko Alioune Tine war na ko ndomba Alioune Tine ndeysaan combat baa ngi noonu dox ci diggante frontière numéro 2 ak yan moom mooy caatu xaar yàlla wala xaar yàlla Grand Yoff ndeysaan combat la ci biir combat yi ndax combat bii wax naa la lëf la arit baa ngi wax ak ñoom li làmb nangoo li làmb bañ ndeysaan caatu xaar moo ne man ginnaaw frontière numéro 2 moo ne moom lañ jàkkaar lool ndeysaan nekk laamu ju bëri coow caatu xaar moo ne man ginnaaw frontière lañ jàkkaar lool moo waral sam-sam baaba jaxaalo ko arbitre bi sifflé na ndeysaan caaru xaar yàlla frontière numéro 2 ña ngay liwaatoo dara amagul frontière nag liwaatoo ba def déplacement ndeysaan ndeysaan ñaari xale yi lu dara am diggante Grand Yoff la fi nga xam ne moom mooy Samsam Samsam 1 2 3 ndeysaan frontière nee na teg waaye caaru xaar yàlla nee na teg ñaari xale ya ndax dañuy xeex am na lu ñu waxante woon de ndax ko def. maa la wax loolu combat bi arbitre baa ngi wax ak ñoom nee leen bëre leen waaye ñaari xale yi kenn ku nekk dafa am loo jógee moo tax combat bi duñ ko saax saaxee maa la wax loolu ma seeti leen ñoom ñaar kenn ku nekk ñu xas-xas loo waxante ndeysaan moo tax kenn ku nekk nee na teg ndeysaan arène nationale maa la wax loolu frontière fii la daanaan Bébé frontière numéro 2 fii la daane woon Double Less Caatu Xaar Yàlla fii la dara amagul de arbitre baa ngi wax ak ñoom nee leen na teg Caatu Xaar Yàlla na waa diaspora bu nuyu naa leen rawat na ñuy safoo SBT Média ndeysaan ey waay Samba Ndaw caatu xaari àlloo sànni lii ab Touba Dakar la wala ndeysaan xaari àlla frontière numéro 2 maître ba maa ngi lay nuyu maître ey waay frontière jàppante ñaar xale jàppante nañ xeex xeex xeex xeex xeex ay ah, waay frontière daan ko waay daan ko waay xeex soo sa ko fair play waay làmba gi nii làmba gi nii ndeysaan oh waay c'est beau mu ndeg ba daan na ko xaritu Baba Jaxaw ba daan na ko ndeysaan caaru xaar yàlla ma ngay daw caaru xaar yàlla mbaa doo bàyyi làmb caaru xaar yàlla mbaa doo bàyyi làmb ma ngay tekki téere caaru xaar yàlla bu def loolu da nga bokk ci làmb naanaan nga jégul na si botem ndeysaan tàcc nañ ko frontière numéro 2 frontière bàyyi ma sañ sama biir ndeysaan maranu bés baa ngi noonu di dugg si ñu ngi noonu di ñëw ndeysaan waaw waaw Bassirou Touré borom lay tollool ndeysaan ànd ak délégation bu riis ak délégation bu riis mu ngi noonu présidente présidente du réseau de Kédougou ndeysaan waa Kédougou ñëpp ko dar tey maa la wax loolu ana seeni sët waxu waxuma la pare rek <laughs> kii Kédougou la ko jëlee Kédougou. ah Kédougou la ko jëlee la ko jëlee. maa la wax loolu. marraine ah, bi marraine bi Kédougou la jógee. ko. maa la wax loolu. yéey Fouta production Fouta lam def kenn xamul lan la. combat bi nag moo tax si diggante Pulum Junior ak Ibou Kër Mbaye Fall. maa la wax loolu ñaari jàmbaar ñaari ndaanaan. hey Mbaye Ibou Kane mujj fii diggante ma Mame Balla Junior la. maa wax loolu. Mame Balla daan ko. waaye problème keroog bi mujj fa la nga moom Iba Mar. Ah. moo fa daan Boy Sila. jël boobu benn werante. ndeysaan Baye Balla Mbow ngi noonu la griot du peuple. di ko nuyu. ndaanaan kenn moom ci biir réew mi. maa la wax loolu. maa la wax loolu. ndeysaan. xoola ma dem ñu ma àndal suñu père buur géwél léegi noonu ndeysaan ndaanaan borom làmb ji kenn moom hey mbay awaay ah, lii rafet na waay délégation ba riis na maa la wax loolu